السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أزكى صلاة وأنماها وأجرها يعطر الكون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 te yàlla moom wax na ci alquran ni man maa ko joxoon muhammad kon nag man maa koy garde mi ngi fi nag toujours pour muhammad inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafiduun yàlla nag lu muy wattu dana raw dara du ca tàbbi alquran yàgg na fi ñii jéem jéem nañ jéem nañ ci ñii jéem mooy nag mooy ñi nga xam ni ñoom dañuy weddi ak ñii woote xam-xam defe ni mën nañu soppi ñi nga xam ni ñoom ñooy woote xam-xam defe nag mën nañoo soppi waaye ba léegi waaye nag ba léegi baawu bismillahi rahmaani baawu bismillahi boobee jógagul ca palaasam boobee wala daalliina amin nuun googee toxoogul kon yàlla moo ko teg loxo bare na ko yàlla jubóon ci jikko ak muñ ci la jubóog yow muñ nag maanaam muñ ci gàttal rek gàttal ci waxtaan wi rekk ci muñ muñ daal dafa am ñu ko lim ñetti yoon wax ni benn bi kii muñ muñ gu dëggu lay muñ ngir yaakaar yoolu ëllëg ndax ni muñ toll ca yàlla kooku motax muy muñ kuy muñ do ca gal dara ne benen bi ci des muñu ñàkk pexe la waaw yow ponkal mu la ëpp doole pel la nga jàmbat yamu ca mu door la nga daan ñu ne la muñal nga ni muñ bayil ko ak yalla da nga ñak pexe waaye muñuloo beneen ba jëles nag ah, moo di moo di ki nga xam ni ki nga xam ni dafa ni dafa ni man day dañu may atte atteb dërëm ki ko moom ki ko moom ko ci poosam bu jaay jotee mu bëgg a jënd kaani mbaa xorom mbaa limon dërëm ba du ni bëgguma lii jënde ma lële moom daal fu ñu ko dugal rek doon te ci safara la mu dugg fa moom dërëm ba te du ànd ak njàmbat nag kooke bu attewoo noonu yi kooku muñ nag dëgg-dëgg man daal جوخنا يلا صامبا لو كان يخدم شخص الحاج مالك رضي الله تعالى عنه تيمون دابا وخني يلا مون ليغا ماي تك موما گنن كون نك باغا ماي تك دارا يلا ما نغلي نيان nga toj sama xol ba lu ñew ma bëggé ko بلاهيك آه. يا رحمن يا الله سلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله